dixième édition Adel mu nekk euh, foire bu mag boo xam ne mi ngi am fii ci Tëngéej tey nag ma daje fekk euh, champion boo xam ne allah am na lu ñu jotoon waxtaan defe naa ni Adel bi passé la xaw ma kañ la dina ci ñëwaat léegi kilifa gi nuyu naa la. baax ki ñu ngi lay ziare di ziare waa Samagal TV yëpp di ziare Aklu élevage yëpp di am kontaan bu wér nag. si seen visite bi. à chaque fois que ñu dajee ci foire rek mbégte la mbégte la parce que yéen. léegi ngeen di liggéey ngir élevage. macha allah ngir éleveurs yi jëm kanam gis seen bopp si li ñuy def. moo tax euh, mbégte gu rëy lañ si am vraiment si seen visite bi. di ñaan yàlla yàlla na yàgg lool nag. ñu yàgg koo fekkee ñu ñëpp incha allah. macha allah kontaan bu baax a baax si voyage si visite bi incha allah. tey ñëw nga def euh, exposition. def deux box euh, indi ay sujet tey fa liggéey bi toll par rapport ak fi mu tolloon. waaw waaw nekk si liggéey bi rek di góorgóorlu rek xam nga élevage moom.

indi nañ indi nañ leneen lu bokkut ak lu ñu indi woon. loolu dafay wone rek ne ñu ngi si yoon bu baax bi. waaw ci yoon boobu ci lañ bëgg a continuer incha allah gis naa euh, ba yàlla gën ñoo fi ñu nga xam ne fa lañ bëgg a yegg te am nañ ci yaakaar incha parce que loolu mooy suñu yéene si élevage sincèrement ñu siy sant yàlla baax a baax a baax euh, ci deux box yi sa production nga indi nu parce que fii fi indi maal fële fa jeune maal maal bi ànd ak euh, ñaari tëng wala ñaari espoir xamul lan la fee tamit jeune maal ba Euh, dañu indi champion bi di Abdou Fatah euh, may remercier de passage Abdou Fatah Diop bu momo mayen croisement ma juddale ka ma jël tour bi delloo ko ko pour delloo ko njukkal parce que élevage lepp dafa wara rafet rafet uh-huh. euh, muy xar bu doy war xar bu doy war si sama ben femelle doomu pulmaan bu may yoron dama mayen meen dama la croisement mayoon si Cobra si Cobra si Cobra mu jur ki ma tuddee kaka ki jur dom ju gor

ku mu ànd ak box bi. box bi mu ngi ànd ak benn doomam. mooy noir et blanc bi mooy noir et blanc bi. robe blanche bi tam. robe blanche bi kii du doomam. kii doomam kii du doomam. mais sama production la man maa ko juddulee. Euh, mais moom kii doomam la. kii ñaata moo la kii doomam la kii mu ci 10 mois. mu ci 10 mois. voilà kii euh, yaayam doomu doomu mosu la. yaayam doomu mosu la ma teg ko ci moom. Cobra mooy baayam. Cobra ku ko xam. xam ne xar bu day waar la. doomu moos boobu fu mu jógee naaja gi la. déedéet laa ko jëlee. ok si Pa Samb. moo moo moo ko moo ko moomoon moo ko juddulee. ok voilà bi tëng bi 10 euh, mois. dafa dëppale tëbagul. na tëbu na croisé naa ko croisé naa ko si doomu grand baabu. ok koy wax grand baabu junior bu ah. sama xarit Omar Cissé. Euh, waaw euh, naa ko fekk kay bu moon set. mu ngoon sepp mu ngoon sepp. voilà ba BAKB. BAKB waaw moom la BAKB. Kër Bakary macha allah noonu moom moo ko couragé. muy croisement bu ñu am yaakaar. wax dëgg yàlla ndax xar boobu ku ko xam-xam ne champion la. donc ñu teg ko ci xar bi eh, am nañ yaakaar ne. champion war na fa mën a mun na faa juddu. tëng bu weex bi tëng bu weex bi kii eh, eh, papaam côté papaam. saa yi macha allah la. côté papaam bu pa papi Dieye.

Joal la. bu Joal la Ndiaye bu Joal la. ah d'accord bu Joal. di grand éleveur ku yàgg si élevage xam élevage. macha allah eh, waa Mbour yëpp xam nañ koy Ndiaye Ndiaye. ok moom moo ci benn encouragement si si si benn maal bu extraordinaire bu mu yoroon aussi foofu. macha allah voilà mu jur lii. ku xool xar bi xam ne vraiment. macha allah am na ndey am na bàyyi macha allah. moom moom mu ngi si ñoom ñu ñaar ñoo tolloo. ñu moom itam na croisé naa leen. bu sama rak sama petit frère. Yaya Mbow. ok ah, Yaya sama petit frère la. fekk naa ko. voilà voilà mu ngi fi ah. mu ngi fi sax de yéen. mooy mooy mooy donking donking. donking moo ko tëb moo ko tëb. ah champion kooku donking moo ko tëb. yaa ngi yaa ngi dugg ci rëb yi ah, ñu ngi si ñu ngi si élevage bi moom. Eh. ku loolu la la nekk waaw waaw waaw. jeune mâle bi ku ma àndal. fee. voilà jeune mâle bi mu ngi ànd ak benn doomu Fataar bi ñuy wax Ramses. moo jur feexe wala. non Ramses moo jul cuulul bi. moo jul cuulul bi Ramses moo jul cuulul bi. waaw Ramses mu ngi ci treize mois. treize mois mu ngi ci moo jul cuulul moo jul cuulul bi. femelle bii nii doomu doomu UGB la. moo jur seex yi moo jur seex yi ak Abdou Fataar. ak Abdou Fatah Abdou Fatah mi waaw donc ay doomam boo xoolee cuulul bi cuulul ban maal maal bi ko jur sëti galactique la macha allah sëti galactique la ñu koy wax Meysa man maa ko juddulee yooyu yëpp ñu ngi sama kër ay xar lañ yoo xam ne tey maa leen juddulee téye leen di si liggéey wax dëgg di si gis nag vraiment ñuy def production yu am solo. yu am solo macha allah. macha allah ñaan yalla rek yalla gëna baxal parce que suñu yéene ci élevage encore une fois. Uh-huh. moy liggéey ba képp koo xam ne gis nga suñuy produits yi. nga kontaan xam ne ñii kat vraiment euh, ay nit ñu jar a encouragé lañ. parce que loolu rek moo si am solo. retour retour de Cobra am ñaata mois. waaw le retour de Cobra à six mois. six mois six mois. lu tax ma tuddee ko retour de Cobra nag. Euh, loolu képp ko xam Cobra soo gisee xar bi. da ngay comprendre lu tax. parce que daf ko jël ci tous les côtés. daf ko jël ci tous les côtés. comprendre nga daf ko jël ci tous les côtés moo tax euh, ma tuddee ko retour de Cobra. di wax gars yi ne leen Cobra dellu si na. na ko gars yi bàyyi xel nag. macha allah na ko ak la élevage bàyyi xel. macha allah parce que xar bu am. potentiel yu doy waar la. waaw incha allah. yaakaar exposition bi rafet na. Euh, euh, Cobra rafet na waaye. Euh, champion bi tamit. def na évolution bu Abdou fata Diop non Abdou fata Diop sincèrement encore une fois. damay remercier Abdou fata Diop parce que moom may croisement bu mbaaw. ma sant ko gërëm ko jël tur bi delloowaat ka. macha allah mais xar bi xar la boo xam ne ne. na ko élevage yëpp bàyyi xel. macha allah parce que mu ngi def production jamono ju ñu toll nii. bu mucc ayib bu doy waar. macha allah waaw kii daal sama ji. Uh-huh. ah yàlla te wëral ka uh-huh. loolu lañ koy ñaanal parce que xam nañ ne mun nañoo yóbbu fa sori. macha allah voilà. Euh, kon jox ma numéro bi adresse bi ak. voilà numéro téléphone bi di 77. 019 79 42. 76 367 bi nekk Arafat 3. fii si Rufisque. macha allah année yaa sa copain. yaa mu ngi fi. exposé na exposé na mu ngi si ginnaaw. papaay mal papaay kii bi na. mu ngi fi. mu ngi fi mu ngi fi. gars yi la précisé. dégg nañu